mi ngi dugg ci waneen saar wu ñu tuddee suuratul maariji bopp ba nekk saala saailun am na ñu jàng saala am na ñu jàng saala waaye boo ne saala tamit bu ismu faayil ya ñëwee fokk mu xam xam sa fokk nga ne saailun mënta ñàkk su ko defee bu fekkoon ki toftaleeg alquran la mi ngi wàcc gannaaw alxaaqa kon nii mu toftaloo rekk la moo tax alxaqatu dafa ñëw di jàngale mbiram bis penc ci commencement waaye nag suratul maarij gi ñëw di ko mottali ba men daal bii dafa ñëw commencé film bi saar wi ñëw mottali film bi nag moo tax moom nii mu toftaloo rek noonu la toftaloo woon tamit ki njàngaleem yonantu bi sallallahu alayhi wa saar la woo xam ne ñeen fukki aaya la ak ñeent soo jëlee tamit maanaam baat ya ñaar téeméeri baat la ak ñaar fukk ak ñeent moom la ëmb kon lii la saar wi ëmb ci ay baat ëmb ko tamit tabaarakallaahu ci ay aayaat moom nag dafa tëb rek dal ci mbiram bis ci ne bu ñu yeggee ca bis ba am bis ba dana yàggee ni maanaam juróom fukki junney xat juróom fukki junney xat benn fan benn fan waa laaxira dana yàggee ni juróom fukki junney xat fi yawmin kaana miqdaarahu alfa sanatin mimma taxuduna waaye tamit fii dana wax ne xam si na alfa juróom fukki junne xat dafa def maanaam tashbihul baliix moo gën moo gën a foor ci balaaxa ci wàllu tashaabih yi su ko defee bis booba bu ne juróom fukki junne xat te fee mu ne junne xat wax ji nekkul tanaaqut buñ jëlagul suñ suñ loosmaaya ci aljana taxawaay ba yàggaay ba dana métti ci ab xéeféer ba mel ni juróom fukki junne xat buñ xasee jël nag suñu loos maaye ba xas toog foofa nag wa yow yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna mooy dañoo xas dugal jaana ba pare noonu lay yàggee suñu bisi àllaa xiraaya bisu àllaa xiraaya bis la yoo xam ne ay xat la maanaam ay junnee xat lay doon bis bu ne ay junnee xat lay doon bis ba ca gën a tiis nag mooy bu ñu walee bufta bi bees ñu yore suñ téere war a dem ca péncam yàlla ma taxawaay bu métti booba ñu wiise tàngoor yi ba yuur yay bax nga gis benn ndëggu yi xéeféer ju ney dëgg-dëggu ca foofa nag dana métti tiis ci ab xéeféer ba mel ni juróom fukki junne ci yàggaay loolu la ca namu ba ko yonent bi waxee alquran jàngale ko benn saxaabi ñëw ci yonent bi ne ko ah loolu kon dana métti di mu ne ko xam nga ni muy mel ci ab julit dana woyof ci ab julit ba mel ni julleeg farata gu muy joxe sa julleeg faratu subaar jot rek nga jàpp njàpp lu sell am leer ak julli fekk yaa ngi dund leer ak julli nga kabaar gannaaw li xaam julli sëlmal ni muy neexee ci yow ak ni muy woyefee ci yow taxawaayu bis penki noonu lay woyefee ci ab jullit noonu lay mel boo yégee hadis bi ñëw nirale ko ak julli sew sew la xam nga julli seen cosaan bañ koy jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom fukki julli la woon juróom fukki julli la woon muy wàññi lu ci juróom waaye sax wàññi wuñ ko coono ba rek lañ wàññi waaye payoor ga dara wàññeekuwut ca ndax man jaa bil hasanati fa lahu ashru amsaaliha ñoom nag comme dañoo weddi yàlla ba weddi xaale juróom fukki julli yooyu doon tubi andi woon juróom fukki julli julli gu nekk dañ leen koy dañ leen koy mbugal junney xat boo ko boolee lu muy doon juróom fukki junney xat loolu tax mu yonent bi di ko misaalee ci wàllu julli kon bis la bu tiis a tiis a tiis waral xéeféer yi waaye bis la boo xam ne bu xooyof a xooyof a la ñeexal jullit ñi yàlla nañ ca bokk am na ñoo xam ne tey ni leen seen juddu umpee amul kenn ku ma nettali ak juddoom yow dañ la koy nettali rek am na ci ñoo xam ne tamit noonu la leen di bis penc yi umpee dañuy dem ba jël seen losmaa ne waaw kañ la woon bis penc ñu ne fa ci at yële la woon ay ah, yëgoo ko woon mu ne man yëguma ci dara yàlla nañ bokk ca ñooña ñoo xam ne bis penc duñ ci yëg dara kenn ku ci nekk ni la sa juddu umpee dañ la koo nettali ak sa ngénte wallaay am na ki ñoo xam ne nii ala kulli haal bis penki noonu la leen wuppee duñ ci yëg dara waaye am na ki ñoo xam ne moom danañ jànkuwanteeg coono ba ba ngeeju ne waaye waaye fu ñu dem baax na coono bi métti na fu dem baax na coono bi xatt tuñ ko ca la ñuy daw di seete yonentu yàlla Adama ñuy dem ji noona ba yegg ca yonentu yàlla Noox ba ca Ibrahima ba ba ca Isa moom moo ñu mujj orienté ñu ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jug di julli ñaar rakka sama borom ne ko fii du jullee kaay sal toota tasfax tusfax su ko defee mujj commencé ramu nag am na ki ñoo xam duñ ci yëg dara yàlla nañ bokk ca ñooña daayiratul fadli bu la ca yàlla boolee yàlla seetul loo ko def yàlla seetul loo ko defal comme yaa ngi ci daayiratul fadli moom seetul loo ko def seetul loo ko defal yàlla nañ bokk ci daayiratul fadli su ko defee ñooña kaanoo bi daayiratul fadli azimi kama qad kaana kooku boo ca bokkee jeex na yàlla nañ bokk su ko defee nag moom lay wax si nii moo tax mu ne bisimillahi sos na ma sama wax si tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xewalaa koon bépp mbindéef ci àdduna bi arrahiimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira saala laaj na saailun aji laaj bi azaabin ci mbugal waaqiin bay aji tàbbi lil kaafirina ñeel xéeféer mbugal moo xam ne bu ñëwee lay sa loxo déet di ko ñeexal daa fi on jenn aji jañ ku ko mën a jañ amuñ fi mu ne laaj ci mbugalam yàlla ma yàlla mi nga xam ne zil maari ji mooy borom yéegu waayu malaaka yi taaruju dana yéeg al malaaka yi ñoom ñëpp dugg mu ne wa ruuxu ak jibril xatful xaas alal aam ilayhi jëm ci mbiri yàlla fii yawmin ci bis boo xam ne kaana nekk na miqdaaruhu yàggaayam ga fa mel ni xam xam si na juróom fukk la maanaam alfasana si juróom fukki juróom fukki junne ci ay xat noonu lay yàggee su ko defee nag fas biir muñal yow yonentu bi sabran ak muñ jamilan gu rafet innahum naka ñoom xéeféer ya yaraw na woo gis nañ bis ba baidan muy lu sori jàpp nañ ne amut wa naraahu xam nañ ko ñun yàlla xariban muy lu jege yow ma takoonu bis boobu dana nekk asamaawu asamaan si kël muhli ba mel ni ki ruyutu xaalis wa takoonu mujj aljibaalu doj yi kël ihni ba mel ni ki witteen bu ñu cuub wala yasalu du laaj xamimun benn xarit xamiman xaritam ba yu bassaroonahum def na wan leen danañ fa gisante yu bassaroonahum def na wanante leen danañ fa gisante wa yawaddu dana ngéeju almujrimu xéeféer bi law yaftadi bu njoto woon law bi maanaa an mu mën a njotu min azabi yawmin maanaam ci mbugala min azabi yawmi sin ci mbugala bis booba mu mën a njotoo bi ba nii ci doomam yi wa saahibatihi ak soxnaam wa axiihi ak mbokkam wa fasilatihi ak gañoom gi gañoom gi nga xam ne la tiimooy gi nga xam ne tuuf yi danañu tàpp ko wa man fil ardi ak ñu nekk ci suuf jami'an bi mu mboole seen su ma yun ji topp ñu musal ko kàllaa déeréet mbir mi demee noonu duñ ko musal de innahaa naka moom safara lazaa njaar la ca turam ya la nazaatan mbir mi muy nekk ñori kon li sawaa ci deru bopp moom de day ñori deru bopp bu koy jege rek mu ñori sa deru bopp bi te doxoo moom safaroo ma ngay xoo man add bara képp ku gannaawal walis gam yàlla wa tawala mu dëddu walis maanaam dëgg wa jamaa mu boole alalam fa awaa mu koppar fooral ko du ca génnee asaka lii ñoom lay ñoom lay safara maanaam di yàlla yàlla musal ñu ci kon boo déggee mu tëb rek ne saala saailun sababu sol bi mooy Nadir ibnu Xaaris ab comédien bu mag la woon daan wax yéeféer yi ne leen yonantu bi lim leen di nettali dafa xewi ay mbiri aat ak uxuut ay ay samuud ak saalihu kaay leen ma wax leen ay actualité ab musicien bu mag la woon yore ay riiteem ay balambatam di tëggi fecc di way nit ñi wër ko moo moomoon aaya booba wàccoon ci misik di ko xaraamal ta waxoon naa leen ko bañ ca tollee kon loolu leeroon na ca su ko defee kon wa mina naasi man yashtari lahwal xadiis alquran dafa ñoo sant ñi topp ahsanal alxadiis bàyyi fi lahwal xadiis loolu lislaam santaane su ko defee nag moom yonentu bee toogoon ne man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaahu képp koo xam ne man yonentu may kilifaam na yëg ne Aliyu ibnu Abi Taalib kilifaam la loola métti kum ñëw ci yonent bi ne ko yow nag yaa ñu digal ñu wéetal yàlla ci tuddu baatu seede bi jubóoguñ ceeg yow nga gën a monte ne nañ julli é moo ca nañ woor nañ joxe asaka yii yëpp ñu ngi négocier ñun am na nañu dugg am nañu duggagut nga bëgg a jël sa doomi mbokk mi teg ko ci suñ kaw ñun duñ ko def yonent bi ne lii ma wax leen de ci yàlla la baxee ko waxuma ko sama bakkan yàlla ma ko wax loo de ku may sa kilifa Ali ibnu Abi Talib sa kilifa la ah moom ak texe di jàpp ko bu fekkoon dafa na ma texe day wax ne yow yàlla lii yonent bi wax su fekkee dëgg la waaye yàlla nga ñu gindi allahuma in kaana haada huwa alxaq min indika moom mu ne fa amtir alaynaa hijaratan mina samaa'i yow yàlla su fekkee lii muy wax dëgg la waaye waaye togal daw maanaam ah, tawal doj ci suñ kaw moo tax loo fi dégg duhul lu bees xale yaa ngi koy wax léeg-léeg nit taxaw ñàkk kilifa ak baayam ne ko fekkee yaay fekkee yaay yàlla tawal doj kon tawal doj yàgg na fi de lu fi yàgg la kii moo ko njëkk a wax moo tax dara beesut moo tax Muawiya mos naa dajeek benn jigéen gu dëkk euh, maanaam yaman nga xam ne ñoom Balqiis moo doon seen buur mu ne leen yéen a ñàkk fayda yéen a ñàkk xel jëlu leen kenn mu nekk seen kilifa lu dul ak jigéen mu foo ne wax na ko ba yey waaja yéen jigéen leen yilif yéen a ñàkk fayda mu ne ko li ñuy ñàkk-ñàkk xel di ñàkk-ñàkk fayda seen nit ñi ñoo gën a dofe su nit ñi seen nit ñi dañoo neen allahuma in kaana hada huwa alxaq min ko fa amtir muawiya xamatul lu mu koy xam ne xëy na ko kon dëgg kay boo xamee ne moom la nel yàlla na ma yàlla gindi ma jëfee dëgg ja waaye ne dëgg ne fekkee dëgg la tawal doj moo tax yàlla xalak na ko de yàlla mujj na ko xalak kon kooku moom moom bi azabin waaqian lil kaafirina mbugal ma bu ñëwee dara mënu koo protéger faw mu dal kañ lay ñëw bis bu nga xamee ne àdduna bi day tukki asamaan si tabaarakallaahu mel ni ruyitu xaalis day nooy nepp matière bi ci nekk du fi nekkati suuf si tamit mel ni witten boo xam ne dañ koo cuub wulli ko ba mu nooy nepp suuf si daal moom mooy gën a nooy éponge xam nga bu baax kenn du ci mën a toogati ndax suuf si nit ñee ko fi taxane buñ fi nit ñi neetu dootu fi neex ti ñu déplacé suuf si malaaka ma ñëw nag lem ko ni ngay lemee sa éponse bi wala sa sajaada bi moom la alquran nekk tey si jili lil kitaabi noonu lay leemee kii bi nag bokk bokk juróom-ñaari suuf yi dox waaxuy dem <laughs> na ndaw ndaw ku rëy la koy bokkee dem yàlla nee na safara woowu ca ngeen jëm bu ngeen ca yeggee da ngeen ngéejuwu njot sa alal say soxna say doom mbooleem lu nekk ci kaw suuf naa ko joxe ta bokki ci safara yàlla ne déedéet mënta ne de safara bi kay képp ku dee ci weddi yàlla safara dafa lay woo di la wut si ñu jatan ko ko nag di ko yew muy tëb di fuddu tar tarmi bi shararin kal qasri ka annahu jimalatun sufrun la alquran wax ci jeneen aaya xam nga safara day mer takkaadu tamayasu min alxayti la alquran wax al ne safara ngay safara ngay xotteeku ngir mer di baw mel ni ab xaj ngir yàkkamte lakk xéeféer yi su ko defee nag safara la woo xam ne boo koy jege rek ma dugagoo de boo koy jege rek tàngoor wa day ñori sa deru yaram nga xam ne kon nazaatan li sawa sa deru sa deru bopp bi moom lay njëkk a ñori su ko defee nag ñori sa yaram wi yëpp su ko defee xam nga yëg-yëgu nit ci der la ne moo tax bu la waajee pikiir bu paasee der bi dootoo yëgati dara bu koy génnee bu toll ci der bi rek nga yëg ko su ko defee nag yàlla ne moo tax moom xam na ne mbugal ci der moo koy yëg moo tax mu ne kullama nadijat juluduhum dan kay gayraha bu sa der bi ñoree rek ma indiwaat yeneen der ci loolu ngay nekk suma laa yemootu fiiha wala yaxya doo dund doo dee ba pencam yàlla ila abadil abad yàlla nag di wax nit nim ñàkkee jom nit moom yàlla ko bind ci mu nekk kuy saalik nit moom saalikkat la ñàkk jom mooy koo xam ne bu yoree wërsëg am jàmm am wér commencé saatagaay di tiitaru di xalamlu ut ñu ko way muy tiitaru ñu koy bakkal ay maamam muy direeku bu ñàkkee mbaamu feebar ma ngay commencé won ko boo ko gisee yërëm ko ñun ci ñaari xaal yi lañuy ñuy dund moom daal bu jàmm amee poos bi fees wér-gu-yaram xas nekk su boobaa kenn ku la mën a réglé ti nekku fi moom kay ñu ci bëri bu ñu xasee regg mënatoo leen a réglé waaye nag bu ñu xasee xiif feebar am jafe-jafe commencé tëdd ci suuf ña ngay wonku ba ngetuñ dara foo leen jubale ñu jublu fa ragalatuñ dara mu leen man doomu aadama maa ko bind ci lii moo tax léeg-léeg nga gis kii ki na muy cëpp cëppee bu feebaree ngay wax ne duhut waaj yi am na ki ñoo xam ne bu leen siburu dalee dañ takk seen bopp yi dugg ci ron lal yi danañ yooxu mu ne dañ ko def te siburu rek la kon yàlla mi ngeen ngànnaay yu mën a alagee nit de moo tax mu ne inal insaana naka xeetu doomu aadama xuliqa bindeef na leen aloo an mbir mu ñuy nekk di saaliga kon ida massahoo ndéem jot na ko asaru ñàkk asaru feebar jaswa an muy jàqaa kon wa ida masa bu ko jotee alxayru wér alxayru xalal man noo an muy tereexa kon ilal na lu dul way gëm ñi ñoo ñaay ñan mu ne alazina mooy ña nga xam ne daa imu na way dappetu lañ ala salaatim seen julli ñoom rek la mu ne walazina ña nga xam ne ñoom de fii am waalim aji nekk la seen xalal ya xaqun xaq maalumun ba de buñ xam li saa ili ñeel képp kuy laaj si wala mahroome kiñ xeñ ba mënta laaj loo rek la mu ne walazina ña nga xam ne yu saddiqoona danañu dëggal bi yawmi diine ca bisa fay ba wala si naag ña nga xam ne hum ñoom musfiquuna way jàq lañ min asaabi rabbim seen mbugalam borom inna asaaba rabbim naka mbugalam seen borom xayra mamunin xayru mamun duhul lu ñu hóolu ca ñoom wala si naag ña nga xam ne hum ñoom xaafisuuna way wattu lañ li furuujim ñel seen pëy ya illa ala aswaaji loolu seen soxna aw maa malaka loo xam ne moom na ko ay maanum seen ndeyjoor fa innahum naka ñoom xayru malumin duhul ñu ñu yedd ca dikkee ñooña waaye fa ma ni bu taxaa képp koo xam ne sàkku na wara azalika li nekk ca gannaaw soxna zalika ñooña maanaam wara azalika gannaaw loola fu laa ko yooye gaay hum ñoom alaaduna ñooma di way jalgati li leen xaraam li leen bàyyi fi li leen dagan wala si na ña nga xam ne hum ñoom raauna way sàmm lañ li amaanaatihim seen kóllitey cër yi wa ahdiim ak seen kóllitey xol yi wala si naag ña nga xam ne qaaimuuna way jooxe lañ bi shahadatihim seen i seede wala si naag ña nga xam ne yu xaafisun dañuy dappetoo wattu ala salaatim seen julliya mun na ñu ñu teral lañ fii janaati ñu nekk ci ay aljana yu neex a neex yàlla nañu yàlla boole ci xaaj bi yàlla nee na nit maa ko bind ci ñàkk jom su wéree boole kook am di balballu su ñàkkee mbaa mu feebar balam booba di bonde mu ji peer mu tëdd ne neem dootoo yëgati dara ku ci ñàkk mbaa mu feebar boo ko gisee yërëm ko waaye nag ku ci yor yenn yi nag commencé ngay tiitaru mu ne su amee alal mbaa wér commencé nag nay du ca du ko def ci farata ci li ma bëggul rek la koy def maa la dooleel ba pare ngay dooleewoo sama doole di ma moy mu ne nag su ma ko tegee ak ñàkk mbaa feebar ma ngay ma ngay jàq tiit mu ne xaal bii nga ca génn rek mooy ña gëm yàlla ña gëm yàlla bu ñu amee wërsëg sant yàlla def ko ci la yàlla bëgg suñu ñàkkee ñi muñ delloo seen bopp ci yàlla kooku mooy melaw julit moo tax yonent an tabas yàgg mu ne xajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu xayrun billaahi yéem naa mbiram julit mbiram julit moo yéem ñu ne ko lu tax mooy mu ne koo xam ne bu ko yàlla xéewalee mu sant bu ñàkkee muñ waaye nag ko dul ko gëmul yàlla mbaa sa gëm yàlla ga feesul sa xol soo ñàkkee ku dang ko ko jiiñ man ngaa tàngooree ca biti sax amoo dépense ñëw jaay ko sa soxna saaga ko mbaa nga dóor ko mbaa nga wan ko njaboot gi loolu lépp yaa ngi toji ay kaas mer toj télévision bi te da ko jëndaat kaas bi toj kaas yi nga doon toj léegi te ngi defal la ci ndogoon nga commencé naan café loo ciy toj kon yooyu yëpp manqué rek moo koy waral kon loolu lépp manqué la waaye nag gëm yàlla dafa jafe gëm yàlla piir nga fexe ba rempli juróom juróom benn yi fonk julli doo faat waxtu doo ca yem sax da ngay naafile julli ku jot nga gàttandu ko gunge ko tertoo ko ñeenti rakkaa buy dem nga gunge ko ca tusubaar ya ca tàkkusaan ya timis moom dang koy gunge juróom benn rakka rek waaye bu ko gatandu loolu la Maalik gëm gexe bu ñëwee nga gatandu ko buy ñibbi nga gungee ko gan ak guddi la gan ak guddi da nga ko war a gunge ba sori moo waral naafila guddi yi waaye ga gan gi ñëw rek nga teral ko rek dem tëri nelaw sa gan gi baa dana mën a génn fi mu dëkkoon da ko war gunge ba sori loolu moo indi yaa yaa ayyuhal muzammilu qumi layla illa qalilan su ko defee tamit nag fajar ñëw gan suba teel la nga gunge ko daral ko ci ñaari rakkaa su ko defee tamit julli julli ko moom joxe ko teral ko soo demee ba nga xam ne nag jant bi yëkkatiku na nag julli juróom-ñetti rakkaa fay nange mbaa juróom-benn buy fukk ak ñaar gën a baax di juróom-benn sëlmal yi wuree ci nekk lii lépp lañ bëgg kooku mooy wallazina ala salaatihim daa'imuun foo tollu tamit boo bàyyee koo ca jàkka ja sa xelang ca jàkka ja am na koo xam ne julleem du sëlmal moom bu bàyyee koo ca jàkka ja xelam ma ngay dajaat tusubaar tàkkusaan xelam a ngay dajaat heure bu nekk ma ngay bàggante ku mel noonu la yonentu bi ne bu ngeen gisee nit xelam ma xaju ci jàkka mu baaxoo dem jàkka seedal leen ko gëm yàlla ida raaytum rajulan yaxtaadul masjid fashhadu lahu bil iman kon ku mel noonu moo jar mu ne waaye tamit ànd ak loolu seen alal ya dañ koy bokk ak ñu ñàkk ñi ña mën a laaj ak ña mënta laaj ñëpp bu ñu amee jox leen am na koo xam ne bu doon lekk suuf du la laaj dara yaay xam ne xëyoon na ko rek nga jox ko dëggal nañ bis penc duñ ko weddi waaye tamit ñoo ñoo xam ne mbugalam yàlla ma lu ñuy baax baax di def li yàlla santaane lépp ñi ngiy jàqane mënuñ caa mucc buy kenn dem safara day nekk ñoom ndax ab julli dafay war a dund ci diggante baynal xaw fi war a jaa yaakaar a yaakaar ba buy kenn dem aljaana man lay doon ragal a ragal ba ne buy kenn dem safara man lay doon soo demee ba toll ci sukuraat nag sànnil ragal fële dese yaakaar ne tey lu may bon bon tey ma gën ji koo xamee nii ku baax ku tedd ku tuddee boppam ne innahu huwal baru rahim su ko defee kon nag bay bu ragal waaye ñu gëm yàlla nga dañuy wattu seen pëye du ñu njaaloo seen soxna rek la ñuy ànd mu ne nag képp ku sàkku maanaam fa ma ni bu taxaa wara zalika fa ulaayikumul haaduun wara zalika nag lu bari la wara zalika nekkaale ci la bokk ku jël sab nekkaale sàkk sàkku nga maanaam li la li la li la xaraam bàyyi fi li la dagan koo xamee da ngay toog ñàkk jom naan juróomi at a ngi nii maa ngi moo may génn foo ko teg génn génn mooy waxi lan léeg-léeg nga ne dama ko yaakaaroon génn naa ak moom juróom-benn at korite gu ma xotti moom dafa maa wor keneen keneen moo ko takk ma ne ko ku pareegut kenn mënu ko xaar yooyu yëpp ñàkk jom rek te tamit génn ak nit ki bu ngeen xasee am rapport nga takk ko ca su ngeen sëyee mooy yàlla la sëy nekku fa boo amee moom rapport dañ ko war a laablu ndax jëleewul ca dara te loolu dafa bëri ci ji jamono waaye tamit wara azalika liwaat ca la bokk ñaari góor ñu sëy di fa ji jikko ji gën a bon wara azalika si xaq ñaari jigéen ñuy ànd ca la bokk wara azalika nga nekk góor di fooye sa bopp ba sa mën yu génn ca la bokk nga nekk jigéen di fooye sa bopp ba sa mën yu génn yëpp fa ma di bu taxaa wara azalika ca la bokk kon wara azalika lu sakkan la ji góor daal dañ ko dénk ndox mu foor moo xam ne duñ ko jaay duñ ko leble duñ ko maye yàlla ne nag bu ko yàq bu ko sotti fu ma la ko sotti loo mooy sa soxna rek waaye bis boo defee lu duwoon loola yaa ngay yàq ndoxam yàlla mi ni koy mala yi yàqee ku leen neex fu leen neex kon loolu baaxut ndax njaalukat boo gis ji koy mala la yore moo tax lislaam nañ ko def jëfi mala mala bu defee lu garaawut dañ koy dóor moo tax moo indi téeméeri su defee lu garaaw ba garaaw a garaaw nañ ko rey moo indi maanaam euh, jam la ay xeer ba nga dee rek mu jeex ku jëf-jëfi mala ñu jëfee la jëfi mala njaalukat yëpp jikkoy mala lañ ware moo tax yàlla ne nañ leen xatte ci ñoom jëfi mala rek dóor téeméeri yar bu garaawee ba garaaw rek ñu sànni leen i xeer bañ dee mu jeex léegi nag aaya ji fa ma lazina kafaru qibalaka yonentu bee toog rek xéeféer yi def ay kuréeli kuréeli kuréel wër ko di ko buqi seen bët yi rek fekk nag ñoom dañoo xam luñ xemeem dañoo bëggoon daal kenn ku nekk ci ñoom dugg aljana ne aljana daal ni ñu yàlla tere leen nii waaye bu àllaaxira nii rek lay demee ku ñu dëkk aljana da nga ñëw faa gën su ko defee nag ñi commencé jël seen yooye di xool yonent bi moom lay alquran di wax si nii moo tax mu ne fama lillazina ana lan mooy mbiri gaay ya nga xam ne kafaroo weddi nañ muutiina mbir mu ñuy way buqi seen bët ya izina mbir mu ñuy def ay kuréel ani yemini ci wàllu ndeyjoor wa ani shimaali ak càmmooy xibalaka mbir mu ñuy jàkkaarloog yow lu ko waral ayat ma ndax dafa xemeem kulli mriin képp assi ca minum ca ñoom an yu du xala ba tàbbaleef ko janata naimi aljanay xiw kàlla mbir mi demeewut noonu de innaa naka ñun yàlla xalaq naahum bind nañ leen wa mimmaa mimmaa ya'lamuuna ca lañ xam de toqantal ma ñu ci laa leen bind falaa uqsimu danaa gëñ bi rabbil ci yàlla may borom fenkuwaay yi wal magharibi ak yàlla mi borom soxuwaay yi ne innaa naka ñun yàlla la qaadiruuna way xattan lañ xalaa an nu ba ñu baddi ñu watee xayran ñu gën minum te ñoom wa ma nax nu ñun bi mas boo xëy na ñu nekk ñuñ mën a raw mënu leen ñu raw de fatharuhum bàyyi leen rek yaxuudu ñuy xuus wa yalaboo ñuy fo xataa yu laaqoo ba ngi daje yow moom seen bis ba la ci ba nga xam ne yoo aduna def na dëxal leen ko kañ la mun a yow ma yaxrujuna bis ba nga xam ne dañu génn minal ajdaasi bàyyi ko ci bàmmeel yi siraan mbir mu ñuy way gaaw ka annahum daanaka ñoom yuufiduuna dañuy bëbbu ilaa nusubin jëm ci xiram xaashiatan mbir mu aji buqeeku absaarum seen gis wa tarhaquhum mbir moomu dana yéeg leen zilatun toroxtaane daalika yoom boobale bis alazi mooy ba nga xam ne kaanoo nekkoon nañ yoo aaduna dina lëf leen ko de mooy bis penc de bis la boo xam ne xéeféer yëpp ay torox buqi seen bët yi toroxtaane dal ci seen kaw ñu rungu leen jëmee leen safara ñi dox lu ëpp téeméeri kilomètre coono ba rek doy na coono dox ba door a hegg safara waa aljaana moom dañ leen di jege dañu dox ñaari mètre rek ñu ubbi aljaana fekk ñu ngi ko ñu ngi ko ubbi aale ba da ca safara moom ñu ngi ko tëjaale benn air duggut da ngay ñëw rek ñu hubbi rek ba max rek daal di ne tëjaat ko nag ne kàccit ñëpp dugg ca biir kon aaya ji jeex na saar wi li ci tegu mooy suratul noox